merci monsieur le président de l'Assemblée nationale bi jiite mbirum science bi madame la ministre mbirum famille bi femme famille genre moom naa ko tëb protection enfance maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur Samba si di nuyu sa collaborateur yi nga àndal ak sa collaboratrice yëpp da nuyu sa directeur cabinet ndax depuis 98 la ñu xamante woon muy nit ku baax ku ku xam liggéeyam euh, dem ma ñëw nag ci ay jàngat rek kon ni la ko waxoon ci commission finance bi yow sama goranga ndax si yaakaar naa sa borom kër mooy nijaayu sama jabar kon yaakaar naa ni mbokk moom foofu la mën a yem waaye assemblée nationale bu ñu fi nekkee dañu fi toogal askan wi la population bu tuubaa Touba bi ñuy tànn ñu tànn ñett góor mu ñëw teewal Assemblée nationale kon jëmmi Touba amul jigéen ku ko teewal fii kon xay na mbirum financement yi comme ñu ngi war a impliqué député yi représenté Touba au niveau de ci ci ci ci département bi peut-être que commune Mbacké mais Touba gis ci boppam ci loolu ndax musuma gis benn information boo xamante ni yow yaa ngi koy def au niveau nga compte ñu ñett député yu góor yi nekk Touba amul. te yaakaar naa ne ministère bi du ministère u jigéen yi ministère ñëpp la ndax boo demee tey sous région bi sax dem nañ ba ba àgg seen ci seen euh, euh, démocratie ministre de la femme ñu ko jox góor xay na peut-être Sénégal amagul loolu mais tey am na si sous région yoo xamante ni seen ministre la femme góor moo ko yoree kon du maanaam ministère bi du ministère u jigéen malgré que bu ko jigéen jiite il faut que tamit ngay mën a sóoraale loolu monsieur le ministre madame la ministre bëgg naa nag ñu waxtaan bu baax a baax ndax aussi mbirum financement lu am solo la mais financement yi nga dégg yépp yu si baree bari tas na ay kër ndax yow da ngay am sa xaalis nga jox ko nit koo xam ne xamul dara ecole war ubbi ñu jël xaalis bi dugal ko si école bi njàng mu xale yi tabaski jot ñu jënd seen jëkkër xarum tabaski mais bu fay jotee fa la ñuy jël lu bala ngaa jox nit ki da ko war a former am na si benn ku ñuy wax euh, monitrice yaakaar naa ay jamono yàgg monitrice amoon na koo xam ne dafay jiitu dem di former nit ñi ci mbirum cuub ci mbirum ba nga xamante ni bu xaalis dikkee danañ xam ñoom ni nga xam noonu lañ ko seere maa ngi ñaan monitrice boobu noonu monitrice ñu indiwaat ko ndax fi mu toll nii loolu mooy li nga xamante ni jàpp naa ne bu doxee financement bu ñuy tege ci kawam dana nekk loo xamante nii tey lu jaaru lay doon lu baax lay doon. maa ngi lay tamit à 3 heures du matin 4 heures du matin ngay wàcc di xool jigéen ñi jigéen ñi sonn nañ trop jigéen ñi sonn nañ trop boo ñëwee maris Dalifort am na si ñoo xam ne bu may julli ji bay génn damay gis ñu lagg si ay kalandoo di wuti jën bu ma leen laajee ñu ni ma amuñu financement li la mën a liggéey kon bëgg naa heure yooyu jot nga wàcc nga xool ba xam jigéen ñi daj du ñun ñii rek ñoo ñëw fii di wax nga ñu jox ay financement wala nga jox jigéen ñi ñuy dem non ñi ko soxla ñi ngi fi te agsi wuñ fii te mun ñoo jot fii il faut que sa bopp wàccewaat sa équipe pour ngeen xool ñooñu Dakar bariwul problème mais banlieue bi ak ñi nga xam ne nekkuñu dakaar nekk ci àll bi boo ñu yoon si département Mbacké bàyyi fukki commune ak juróom yu aji si département Mbacké mosuñoo gis ministre de la femme lu dul buñ woote ñaar ñoo fay ñëwal ñu gis la télé bi loolu yaakaar naa war nañ ko mën a xoolaat bu baax a baax malgré que ñu ngi joxe mais joxin bi est ce que ban résultat ngeen am ndax di génn seenu xaalis depuis maanaam waat Wade nekk fi ba léegi financement yi gën yëpp ñaata ngeen ñaata ngeen récupéré waat il faut mu xam ndax di génn xaalisu réew mi di ko jox ñoo xamante ni duñu si liggéey vraiment loolu tamit amul sëñ madame le ministre aussi tamit ñu bëgg ñu waxtaan si affaire soin ndax rapport bi le rapport prestation des budgets de projet de budget 2020 boo demee ci xët bi nga xamante ne mooy ñaar fukk yi ak ñaar da ngeen siy bind nii renforcement de capacité technique administration mettre mettre intégralement des gens dans le poli des politiques publiques kon loolu bëgg nañ xam saar mooy ñan boo demee ci deuxième phrase bi da def tamit. intersection de la lutte contre violence basée pour le genre kon loolu dafa am loo xamante ni ñun dañuy jaaxal ñun ay doomu daar lan ñun xamuñu genre te boo demee ci biir national bi ministère bu nekk jël nañ fa fukki million dugal ko ci ci ministère boobu noonu genre xanaa genre du góor du jigéen lekk ñan ñooy genre loolu bëgg naa ñu leeral ñu genre mooy ñan ndax xamuñu ko te ñun daa jàpp ni bu góor jigéen gu jeexee góor jigéen ja je vous remercie madame la ministre. merci merci.